ndax moom sëñ Abdoulaye moo ko may lii waaye ñun sëñ Saliou la nekkee ak moom ànd na maa moom ci sëñ Saliou fukk at ak ñeent benn at sëñ Baara ñetti at sëñ Sidi Makhtar juróom-ñaari at ànd ak moom ci kii xam ne ne wala lëri ci ñun di xarit ci ñun sëñ Aatu ñun liin xam ci moom ci daara ji danoo dëkkal dëkkub Serigne Touba tonki sunu njaboot tonki nu ci lu baax tonki nu ci alxuraan toog ni ci ragal yàlla. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax a baax eh, di ñaan suñu borom defal leen taw tawféex ba fi ngeen bëgg seen site bi àgg fa ngeen àgg fu kawee seen jor ci barke Cheikhul Khadim waaw sëñ Atou moom yaakaar naa ni nekk na koo xamante ni ku neex a seede la ndax jëfam moom yaakaar naa ne kenn ku si ne gis na ko jëfam jëfam moom moo moo moo jant ñooyam rek ku ko xool gis ko muy koo xamante ni lim liggéeyal sëñ Tuubaa yaakaar naa ñi nga xam duñu ay jullit sax xam nañ ko rawatina ñi nga xam ay jullit lañ rawatina ñi nga xam ni ci yoonu murid wi lañ ne kon yaakaar naa liggéeyam moom yaakaar naa kenn ku ne rek mën na cee wax loo xamante ni boo doon wax fi ba di wax fi ba suba du jeex. ak seen xalil diggante seen aatu rek ak liggéey bi rek waaw bisimilah ñoo leen jaar baax baax waaw yaakaar naa ni bis bi nekkul daanaka bis boo xam ne bis buñ mën a wax la ndax Sëñ dafa nekk ku ko xam ne dafa dafa rëcc ñun lool nga xam ne daanaka lii dañoo bett lool lool lool lool waaw ndax eh, yaakaar naa ne yoonu murid bépp bépp bépp bépp bépp yëg pëstéefam ñëpp xam pëstéefam boobu ba tey ba mu tàmbalee ba tey mos a tekki laxasaayam waaw sëñ moom eh, seere ko dafa yomb ndax eh, jur la boo xam ne dama ko mos a wax ne ko ñun dey Euh, jàppewuñ la waajur mësuñ laa xoolee itam bëtu waajur euh, alali Serigne Touba la moog murid yëpp ñoo ko bokk kon li ñu ci mën a jàngee ci moom ci ku doon ab taalibi Serigne Touba war a war a war a war a war war a war a war a doon euh, royukaay royukaay rek ko mën a kon géej la goo xam ne ku ci doon wax yaakaar naa yow yaay ba sa wax jeex waaye moom liñ ko war a seedeel du mas a jeex. muy jàmbaar joo xamante ni lim liggéey ci yoonu murit kenn ku ne teg na ci bëtam muy koo xamante ni képp koo xam nekkal na fi sëñ Tuubaa làq na ngërëmam ci liggéey sëñ Tuubaa muy koo xamante ni loo sawar sawar ci liggéey sëñ Tuubaa boo ñëwee fekk ko ci loo sawar sawar ci liggéey sëñ Tuubaa booy dem bàyyi ko ci muy koo xam ne saa su ne ci soññee lay dox boo gisee muy dox rek ni muy dox ak doxam képp soññee la ak jëfam taxul ñuy wax muy koo xamante ni masta dellu ginnaaw ci liggéey sëñ Tuubaa muy koo xam ne dafa dem ba jeex tàkk ndax mu am ku ne xam na ne aw sant mayoo ko ku ne xam na ne judd gu rafet mayoo ko ku ne xam na ne alal mayoo ko am ñun nag ak njabootam mënuñu cee seere lu nit ñi seerewut ndax moom kat euh, euh, jàpputoon njaboot jàpputoon mbokk jàpputoon kenn ku dul ki jàpp Sëñ Tuubaa rek ku dul ki jàpp Sëñ Tuubaa rek loolu daal lañ xam ci luñ ci mën a seere mooy sëriñ bi daal la am sëriñ bi la am sëriñ bi la sëriñ bi rek la am. boo xëyee ci daara ji nga koy fekk ci daara ji nga koy fekk waaye saa booy wàccet ci daara ji nga koy bàyyi mu ànd ak sama njaboot man aji màggat yóbbu laa tudd moo ma yóbbu màkk moo yor sama njaboot bëgg ma ca lii may wax soxna yëpp laa koy waxal ka njëkk a ñëw ci bu tarxee ànd moom ak ki bëgg a ñëw. te juddoogut sama baat bi mooy baatu ñëpp dama waxoon ci daa ci ci seen télé bi ne leen ñun ñaari jàngoro rek lan am ñaari jàngoro dong lan am liggéeyal sëriñ Touba ak bëgg Serigne Touba moom la sañ aatu def moom amul lu muy bëgg amul lenn lu muy bëgg ak lu ko ñor Serigne Touba liggéeyal sëriñ Touba la dalee ca Cheikh Abdoulaye Mbacke mu am lii nga xam ne moom la kaam am ko ci sëñ Saaliwu am ko ci sëñ Abdou am ko ci sëñ baar am ko ci sëñ Sidi di ak suñ soppe bi suñ bi danoo dem Poroxaan mu ne sëñ aatu mi mbubb ko waaye jëmm ji ak bëgg gi moom laa ànd ñoom dem ba jeex tak ci la ci la la wàccee liggéey muy koo xam masta tekki laxasaayam da koo masta takk ba bi ba bi muy wëjj suñu borom muy koo xamante ni jàmbaar la joo xamante ni lim liggéeyal yoonu murit kenn ko ne gis na ko kenn ku ne teg na ci bëtam di ci sant suñu borom bi nga xam ni kenn ku ne am na dogal bu muy dogal ci yow saa buy accès ñu xam ni moom mu ñu la gën a bëgg kon suñu waat suñu waat dañuy jàppale suñu borom daf ñu ko gën a bëgg ko. Euh, waaw waaw ñun euh, lu ñu def euh, lu dul liggéeyal Serigne Touba duñu ko man ndax ñun njabootug Serigne Touba la ñun bi ñuy nekk ci daara yi daara yi Sëñ Saliou yi bari woon na fa tànk lool ci ndigalal sëriñ bi waaye bu masaana ñëw ñun ñii ak njabootam. Euh, kenn ku sañ a jug dem nuyu ji ko sax amut te it rusoon na digganteem ak sëriñ bi ñëw di laaj ak njabootam sax di leen nemmeeku yittee sëriñ bi rek lay dox dem yar nañu ci euh, yoon woo xam ne leneen lu dul liggéey sëriñ Tuubaa mënuñu ku ñëw ci bis bi rek xam ne sañ aatu mi am na lu kenn amut yendu ci fii dem julli ji ñëw waajal ko yóbbu ko moom la defal moom la defal sañ aatu kon maa ngi ñaan gannaawam seddu guyu yéen ñu fi wàccit saa borom defal leen xéewal liggéey bii nga xam ne moom la doon liggéey it saa borom barkeel ko ca ke toog jig nu ñu jig ko sëñ bii liggéey bii nga xam ne da ko ko joxoon ne ko aatu yow mii laa jox sama liggéey bi nga liggéeyal ma ko mu commencé ko nii yal na yegg can fekke ko ca leneen yegg man nag kër gii ma taxaw boole na ma ak njabootam boole na ma waa këram boole na ma ak daara bu jépp bu màggal dikkee dana ma jox ndawal gu ñor jox ma ndawal gu ñorut dana ma jox ceeb dana ma jox diw dana ma jox xaalis yóbbu na ma màkka ca mu amee yaara soor laay koo ko defal desalatu ko dara man tan aj desalatu ma dara ci àddina ca man samay maam baax nanu ndax Cheikh Omar ay sama maam te ki sama ki sama Fatou Omar mooy taaw Cheikh Omar moo jur sama baay waaye sëñ Omar nag la witi woon Sarsara Gànnaar ba sama baay sosoo ci moom laa fekk fi ci daara yi Serigne Touba bi kon yal na saa borom yàggal seen i liggéey bi